ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo ñuy profité nag ci tabaski bi nga xamante ne ni génn nañ ko di baalu àq ñëpp parce que li ñuy def ay njuumte mën na ci am ay ñagas-ñagas mën na ci am ci kàddu mën nañ offensé nit mën nañ tamit wax loo xamante ni nii amaana nit ki da ciy gis boppam ba am ci lu ko métti donc loolu lépp tax ñuy baalu ak ñëpp ci tabaski bi ñu weesu di baal ñëpp ak yàlla may ñu talak fekkee ak am-am ba feet yi ñu mel muy tabaski ak yeneen saa yu amee rek ñu mën ci am taxawaay bu am solo comme ni ko diine santaane. tey nag ñuy def benn genre round up maanaam wax ci quelques sujets yi nga xamante ne nii laal na Sénégal ci bés yu ñu weesu dañuy wax d'abord ci tabaski bi. sujet oblige ak jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi dundee nañ ko feet boobu noonu parce que am na ci abonné yu bëri yu ñu interpellé ci événement wu tabaski bi jafe-jafe yi ci am yooyu yëpp dinañ ko aborder ci vidéo bii dinañ wax itam interpellation yi nga xamante ne nii yenn ci sénégalais ñu ngi koy dund fan yi weesu ñu leen di convoqué di leen laaj ay laaj yoo xamante ni amul bopp amul génn te ñu bari ñi ñuy convoqué di leen interpellé wala di leen tëj mooy ñi nga xamante ne nii ñooy wax ci réew mi ni muy fonctionné maanaam ci wàllum ressources naturelles yi pétrole beeg gaz bi wala wàllum corruption ak lépp loo xamante ni daal lan na jafe-jafe yi réew mi di jànkonteel doomi aadama yi ciy wax ñooñu la ñuy convoqué dig gendarmerie di leen xooxatal ñu seetlu ni mbir mi dafa nduru genre tiitalaate maanaam dafa am ñu ciblé ci population bi pour tëj loo leen seen làmmiñ ñu bañ a waxati loolu lépp dinañ ci wax ci biir vidéo bi dañ koy tàmbali ak événement bii di tabaski ak sénégalais yi naka lañ ko dundee cette fois nag mbokk yi dañuy waxante dëgg maanaam bu ñu wax dara gouvernement bu ñu wax dara autorité yi ñu taxaw rek waxante dëgg suñu biir. parce que yenn saa da ciy baax laataa ñuy jël lépp di ko teg ci ndoddu nguur gi nañu xoolante jàkkaarloo waxante dëgg dañuy wax d'abord suñu mbokku jaaykat yi. lu tax ñoom parce que ñu bari ci ñoom dañuy suivre chaine bii nii te yaakaar na ni moyen la bu gën yomb ñu lancer leen message rawatina nag ñaxtu yu bari yi nga xamante ni sénégalais ñaxtu nañ ko ci tabaski weesu jëmale ci ñoom ak seen taxawaay ak ni nga xamante ne nii ñi ngi ko taxawoo sénégalais ci événement bii di tabaski bi. parce que dafa am yoo xamante ni mënuñu ko comprendre yow commerçant nga da ngay jaay quelques mois avant tabaski nga jënd ay stock pomme de terre soble di ko jaayee sac 6000 ba 6500 francs CFA tabaski bi jub si même stock bi nga jundoon di ko jaayee 6000. ak 6500 même produit bi ka koy jaayee bi tabaski bi jubsee sac pomme de terre ak soble 10500 wala 9500 muy yokk boo xamante ni nii kenn mënu ko expliquer même jaaykat yi sax mënuñu la indil ay explication yu dal xel yoo xamante ni nii nopp mën na ko dégg te lan moo waral yokk bi parce que demande bi mu ngi fi tey bu tabaski jotee famille sénégalaise bu ci nekk da ngay obligé jënd ay pomme de terre ay soble yi nga xamante nii yu mënul ñàkk la pour feete li nga xamante ni mooy tabaski parce que mooy ànd ak ndawal gi donc gars yi lii du dëgg du yoon teguñu ko fenn parce que day baax parfois ñu nit sénégalais suñu biir ñu waxante dëgg baax na ñuy critiquer tout le temps gouvernement bi di wax ni waaw dañu war a arrêter supermarché Auchan yi yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi commencé di fi bari gox bu ci nekk ñi ngi fa mais est-ce que ñun sénégalais yi ñun ñi kaas que Auchan grande surface yi nañu fi jugee est-ce que li ñu warloog suñu compatriote sénégalais suñu mbokkum sénégalais ñu ngi koy def est-ce que ñun entre sénégalais yërëmante nañ suñu biir en tout cas li xew ci tabaski bi wane na ni solidarité amul diggante sénégalais yi malgré baalonte àq beeg yëpp amul yërmande diggante ñun sénégalais yi moo xam diggante client beeg jaaykat bi moo xam dëkkandoo bépp secteur boo laal ñun sénégalais yi amuñu yërmande suñu biir loolu lépp lu ko waral ku ci nekk say intérêt personnel kese ngay xool moo xam jaaykat bi moo xam transporteur bi gis ngeen bi tabaski bi jubsee transporteur yi jël seeni prix yokk ko ba ñi nga xamante ni dañu waroon quitter Dakar pour dem seen dëkk yi passé fa tabaski ak seeni njaboot am ay jafe-jafe ñu xam que ni nit ñaa ngi fi taxaw bëgg a génn Dakar dem tabaskee ji seeni dëkk ak seeni njaboot transporteurs yi profité ci loolu yokk prix transport bi ci loo xamante ni du dëgg du yoon te nit ñi dañuy obligé ñoom it fay parce que ku ci nekk da nga bëgg dem kenn xalaatul bàyyi ko benn dëkk ci biir Sénégal di liggéey si fii Dakar tabaski fekk la fii nii da ngay dem parce que ak sa njaboot parce que ay weer wala diir bu yàgg tegantewu leen bët nga dem tamit ci jaaykoru xar yi foofu tamit beneen problème la la nga daan jëndee xar bu baax ay jamono ci ginnaaw tey boo ko yoree mënoo ci am sax xar boo xamante ni nii mën nga ci tabaski bu jaar yoon yow ak sa njaboot donc bu fekkee ni ñun entre sénégalais ñooy comporté wu ak anam gii waruñoo bett bu ñu nguur gi di jaay doole parce que ku ci nekk li nga ëppalee sa morom yaa ngi ko koy won di ko ko jaay ñaaw na li am ci tabaski ren jii te yaakaar na ni bu ñu toogee rek ñun kese ku ci ne yedd sa bopp xool yow lan moo ciy sa responsabilité di nga xam que ni am na lu bari lu ñu war a améliorer lu ñu war a soññaat suñu bopp su suñu digganteeg suñu mbokk sénégalais parce que solidarité bi ci ñun lay tàmbalee d'abord balaa nguur gi di ñëw di ñu fekk si. lu tax nag mbir bi interpellé ñu parce que bi ñuy préparé tabaski bi ay sénégalais ñoo doon bind ci réseaux sociaux yi di wax que ni Auchan reste parce que ci seen i kàddu commerçant yi nekk ci biir réew mi amul benn yërmande jëmale ci sénégalais yi. te ñuy wax naan Auchan na fi des bu mu dem nañ toog mënuñu leen reprocher dara parce que Auchan day appliquer ay prix yu raisonnable ci beneen wet suñu jaaykat yi ñun di wut ay bénéfices yu ngande maanaam ñoom alal la ñuy wut dem nag bay lor clients yi. donc bu ñu demee ba yegg ci niveau boobu rek problème am na maanaam ñi doon xas Auchan démb tey bu ñu ñëwee ne Auchan na far toog ci biir réew mi kon problème am na ñun defoon nañ vidéo ci Auchan pour wax que ni dañu war a jugee ci biir réew mi te vidéo bi bu ñu ko doon def intérêt jaaykat yi lañ doon xool parce que dañu bëggoon protéger ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi parce que Auchan bu demee ba bëri ci biir réew mi suñu jaaykat yi ñoo ko yëg parce que ñooy jaay lu gën yomb te en plus ñoom ñooy offrir benn cadre boo xamante ne ni di nga mën a jënd ci sa yu bakkan te kenn du la déranger mais bi biñ koy def c'était pour protéger ñi nga xamante ni ñooy suñu jaaykat yi mais tey ñi nga xamante ni ñoo ñu doon critiquer ñun ci vidéo bi ñu defoon naan Auchan na fi jukkee di ñu critiquer di ñu wax que ni Auchan na fi toog baax na ci biir réew mi parce que suñu commerçant yi ñu bëgg xaalis nit yooyee doon ñu critiquer ci vidéo bi ñu defoon ci Auchan tey am nañ dëgg suñu kaw. am nañ dëgg suñu kaw parce que tey combat bi nekkatul diggante commerçant yi gouvernement bi ci Auchan la fi jógee déedéet mais combat bi léegi diggante sénégalais yi la ak commerçant yi parce que sénégalais yi ci boppam ñoo bëggatul Auchan jóge fi. donc ñiy xeex naan Auchan la fi jóge bu yaboo ñu toog noppalu parce que suñu commerçant yi dañu waxante dëgg ñooy dooleel Auchan ci prix yi nga xamante ni dañ koy yokk nu mu leen neexee te nag saa yu événement jubsee dëkk bi métti borom kër yi di wër di lijjanti fu ñu dugg fa pour. seen njaboot kontaan mën a passé tabaski bi ci anam yi mu waree. donc commerçant yi suñu ay frère ñoo ci nekk suñu ay sœur suñu ay papa suñu ay yaay suñu ay nijaay ak suñu ay tanta donc nañu xoolaat seen doxalin maanaam bàyyi di profité ci yenn événement yu ci mel ni tabaski korité pour kurkukur rek am xaalis am bénéfice dëgg la neex na loolu mooy objectifu képp ku yëngu ci wàllum jënd ak njaay mais bénéfice bi dafa war a raisonnable même ci diine bénéfice yu ëpp yi riba lañ ko jàppee maanaam du alal yoo xamante nii lew na donc nañ ci bàyyi xel bu ñu nokkee ci loolu dañuy ñëw ci li nga xamante ni am na ci jamono ji ñu su muy ay teg loxo ak ay interpellation yi nga xamante ni ñi ngi koy def ci ay sénégalais ñi dippee activiste maanaam ay nit yoo xamante ni nii am na ñu leen métti ci biir réew mi jël yoonu pacifique maanaam jëluñu ngànnaay xeexuñu wootewuñ fitna mais seen làmmiñ lañu yor wala seen clavier wala seen big di bind ci réseaux sociaux yi wala di organisé ay marche pacifique yee sénégalais yi ci li nga xamante ni mu ngi xew seen biir réew nguur gi cible leen di leen xooxatal di leen convoqué di leen tëj kaso maanaam léegi daal wax sa xalaat dañu seetlu que ni crime la ci biir réew bi di senegal képp ku ko fiy def mën nañ la convoqué wala ñu tëj la kaso gis nañ ko kaaw Guy Marius Sagna bi teg nañ ko loxo tëj ko kaso te biñ koy def waxuñ ko woon lañ la lay toppee dañu xaar ay fan pour trouver benn motif boo xamante ni dañ ko ko teg ci ndoddam gis nañ aussi kaw Adama Gaye bi même bu fekkee ni d'accorduñ trop ci anam gi nga xamante ni moom lay defee ay mbiram maanaam yenn saa yi mu duggal ci ay saaga wala di utiliser ay kàddu yoo xamante ni dafa ñagas te bu ngeen xoolee après moom looloo ko topp Adama Gaye biñ ko tëjee dañ ne da doon saaga jëmale ko ci Macky nguur gi profité wu ci loolu dañ ko kaso même bu fekkee ni ci cas boobu noonu am na deux poids deux mesures parce que am na ci ay nit yu mel ni Moustapha Cissé chaque fois ñu saaga fi sénégalais yi nga xam ne ñoo fal i sàll te dara du ko fekk keneen ki dàq saaga ci Sénégal mu ngi ci wetu Macky Sall jamono ji muy Souleymane Jules Diop doon na fi saaga Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade bi nga xamante ni bu weesoo statut président bi nga xamante ni nekkoon na ko mag la te suñu aada mag dañ koy wormaal mais teewul ni Macky Sall bi ñu ko falee daf ko jël daf ko ministre teg ko ci wetam donc li fi bàyyi Souleymane Jules Diop ak Moustapha Cissé Lo mënoon na fee bàyyi Adama gay après loolu aussi mu am interpellation Clédor Sène yaakaar na ni yéen ñëpp déglu ngeen intervention bi mu defoon gannaaw bi élément dikk yi ñëwoon ci këram ak mbir yi ni mu fa amee lépp moom tamit ñu bëggoon ko jël tëj ko ci kaso bi doon wër nag lan la ñuy teg ci ndoddam lan moo tax parce que dafa maîtriser dossier wu pétrole gaz zircon ak lépp luy ressource naturelle biir Sénégal même yenn ministères yi nga xam ne ñooy gérer loolu di def seeni i njuuj njaaj ñu ci bari moo leen gën a xam affaire yi parce que da ciy gëstu def ci am xam-xam te loolu day déranger gouvernement bi te pareeguñ ci moom dinañ def lépp pour nëbb ko jant bi pour que mu bañ a wax lu jëm ci ressources naturelles yi fii ci Sénégal. bërki démboo njaay mu am benn sénégalais boo xamante ni bitim réew lay yëngu mu actif trop ci réseaux sociaux yi ñu koy woowee Idrissa Fall Cissé ñu convoqué woon ko gendarmerie lan moo tax parce que day def ay publication Facebook ay publication yoo xamante nii saagawul juste que day joxe avem ci njombe yi nga xamante nii nguuru Macky Sall mi ngi koy def ñu convoqué woon ko gendarmerie nangu woon passeport am après lañ ko ko jox alors que période boobu mi ngi waroon dellu nekk ci li nga xamante ni mooy liggéeyam te en plus mi ngi préparé benn livre boo xamante ni daf ko jagleel anam gi Macky Sall yore réew mi ñu convoqué ko bi ñu demee ba xam ne amuñ dara luñ koy toppee lañ ko bàyyi ñu téewoon passeport am après lañ ko ko delloo. léegi nag situation baa ngi nii maanaam Macky Sall ak gouvernement am gannaaw lu ñu def lépp ci réew mi ci ay scandale ay njombe ci wàllum pétrole bi wàllum corruption wàllum détournement ak lépp liñ fiy def dañu taxaw nag ni kenn bum ko fi waxee képp ku ci wax rek dinañ la tiital xoxotal la pour que nga tëj sa làmmiñ lu ko mooy rek dinañ la tëj kaso caabi féetale ginnaaw dooroo waxati. maanaam léegi ñun dañu nekk ci dëkk boo xamante ni réewum dictature la Macky Sall jamono ji day def li Senghor doon def ak Abdou Diouf ak seeni opposants yi parce que Senghor ak Abdou Diouf ñoo yemoon rek rey nañ fi ay nit tëj nañ fi kaso ay politiciens na ay opposants dàkk nañ fi ay pères de famille ba amatul liggéey lépp ndax lan scandale yi ñuy def ci réew mi kenn bañ ko wax léegi nag Macky Sall bi nga xam ne moo leen donn moo ñu bëgg a delloowaat ay at ci ginnaaw jamonoy Senghor ak Abdou Diouf maanaam di xooxatal sénégalais yi te loolu nag kenn mënu ci mucc ñun ñii di wax ak yéen yow mii di suivre ak beneen sénégalais bu ñu tooñ ci liggéeyam wala ci lu moom ci biir réew mi ëllëg mën nga jóg di wax ñu ne la ràpp ci kaso bi. tey loolu mooy démarche yu Macky Sall maanaam naa ko def mais kenn du ko fi waxee. léegi nag li olof di wax naan mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam jot na nag sénégalais yi jotaat li nga xamante ni mooy seen liberté sénégalais ci boppam. bi muy am sañ-sañ di wax ci ab pénc jamono jooju Macky Sall gën a seewul àdduna donc moom tuuti na lool pour loo Sénégalais yi combat bi nag naka la mën nañ ko def te balu tàkk fitna du am ci biir réew mi comme ni ñu ko doon waxee rek ci suñuy vidéo lu ñu yàq ci biir réew mi ñun ñoo ko yëg parce que ñu ci bari amuñ possibilité génn réew mi dem bi di réew naka lañ ko mën a régler mooy di wuy si ci manifestation yi nga xamante ni société civile yi ñu ngi koy organiser ak mouvement yi moo xam muy manifestation wala sit-in wala lu mënti doon ki koy woote ak ki ko organiser amul solo li am solo mooy la sabab manifestation bi sama intérêt la am déet parce que tey Macky Sall lan moo tax muy def lu ko neex ci biir réew mi parce que dem na ba tollu jamono joo xamante ni xam na ni sénégalais yi génnatuñ pour wane li nga xamante ni mooy seen métit bu aar lu ñu bokk wootee première manifestation bi wala deuxième manifestation bi la nit ñi di ñëw mais yeneen yi ci topp kenn dootul ñëwati loolu moo jaay tay Macky Sall parce que xool leen kaaw pétrole bi sénégalais yi dafa mel ni daf leen intéressé wul wanewuñ dara loo xamante ne nii day fësal seen naqar ci njombe bi nga xamante ni am na ci biir réew mi alors que seen alal la ñetti nit séddoo muy Macky Sall Aliou Sall Frank Timis loolu mérité woon ay bésu manifestation ci biir réew mi ba àdduna gépp xam nga ni Sénégal ay délinquants ñoo ko jiite. loolu tey bu ñu ko defoon forcément nguur gi day dellu ginnaaw jëlaat suñu alal tegal ko ci table bi négocier waat ko ba ëllëg bu sottee bépp sénégalais ak foo mënti ne ak lépp loo yëngu mën a gis sa bopp ci alalu réew mi. parce que doole askan xajul ci benn nguur doole askan xajul ci benn gouvernement ak noo mënti doy ak noo mënti toll donc foog sénégalais am benn niveau de conscience xam que ni réew li la ci métti yaa koy xeexal ak sa manière mun nga ko xeex nag te ba du tàkk fi nu du am mais wane sa naqar. loolu ci sa droit la bokk te tey sénégalais buñ taxaw temm xeex li nga xamante ni mooy seen liberté Macky Sall dina leen noot jël réew mi prendre ko en otage def lu ko neex di tëj nit ñi parce que gis na ni sénégalais dañu toog rek banque seeni loxo kenn waxul moo tax tey muy def lu ko neex. donc tey vidéo bi loolu woon ñu defoon ab taxaw seetlu ci ñaari mbir yoo xamante ni xewoon na ci réew mi muy tabaski bi ak arrestation ak interpellation yi nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale ci ay sénégalais yi wax seen xalaat ci biir réew mi ñu defoon ci taxaw seetlu waxtaan ci sénégalais yi ku ci nekk tamit boo ci amee loo xamante ni yaa ngi ko ciy dolli mën nga ko def en commentaire ñu ci keneen jëriñoo ci ñi nga xam ne ñooy suivre chaîne bi aussi mën ci jàngat donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf